ay république ak ay doy waar yoo xam ne ay droit de l'homme liñ la ne bi ñu la ko waxee liy nekk ci biir baat bi ak liñ lay wax day wuute loolu ñu bari xamuñu ko fi ñu ne nii bari la ñuy wax ci rajo yi ci télé yi naan droit de l'homme droit de l'homme waaye bu ñu xamul dëgg-dëgg li ñu lal ci biir duñ ko defaan te ñu koy wo woo ñu koy défendre ñi koy ñuy taxaw ci droit de l'homme ay jullit lañ waaye dalee di yóbbu sax ba ñuy défendre ay homosexuels xam nga loolu dafa doy waar dañoo seetlu woon ni droit de l'homme dafa ànd ak loolu à l'origine xam naa lu ma ci ci gàttal baatu développement dañ koo war a xool balaa ñu koy balaa ñu ciy waxtaan man développement bi may wax wuute nag développement économique kese ci la bokk nag waaye développement économique kese man damaa jàpp ne Serigne Touba la rek tax indi ko fi man leneen la ko fi indi waaye du bu ñu nee mouridisme kon leneen la ñu war a wax kon développement mi ngi ni ñu koy déggee mi ngi tënk ko ci li ñu ci gisee àdduna kon ci gàttal tubaab yi développement industriel développement technique développement waaye yooyu yëpp ci àdduna lay dellu àdduna lañ yamale seen dund waaye ñu mel ni bu ñu delloo ci lislaam islaam mooy almuridiya benn la ni mu ko gisee moom gën naa weesu loolu gën naa weesu loolu maanaam àdduna moom benn pàcc la ci dundinu doomu aadama te du pàcc sax bi ëpp solo ci dundinu doomu aadama kon islam bi ñuy gisee développement kon dina wuuteeg ni ko tubaab yi gisee ndax man leen damaa jaaxal lu tax tubaab yi gëmul yàlla gëmuñu alaxira ni ñuy gisee ñun ñu war a bokk gisee te ñu ñu ne gën nañ yàlla gëm nañ alaxira lool loolu bu amee rek jàpp naa am na ko ci wàcc àndam fekki moromu kon loolu dañ ko war a xoolal kon islaam moom nan la gisee développement euh, loolu ngir ñu xam ko dañuy fàttali li tax suñu borom indi ñu fii ci kaw suuf ndax suñu borom euh, maanaam sàkkul dara ci neen ci hasard li muy def dafa am lu tax mu def ko wama xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbudun sàkkuma doomu aadama wala euh, nit wala jinne lu dul ngir ñu jaamu ma kon ibaada moo tax ngir ñu sàkk doomu aadama jaamu suñu borom bi mu ko sàkkee da ko ënd ci kaw suuf bàyyi ko àjjana rek da ko ënd ci kaw suuf ngir ay sabab mënu ko ci kaw suuf léegi ngir mu war a dellu àjjana yam yam jógee woon diir boobu nag ndiir su gàtt soos mu fi nekk doomu aadama yi war naa góor góorgóorlu ba li ko fi suñu borom sant muy jaamu ko mu def ko waaye nag jaamu gi nag suñu borom da koo boole ay bëgg-bëgg ak i soxla ak i melo yoo xam ni doomu aadama dafay soxla dundiin wu jag ci kaw suuf ngir mën a waajal dellum boobu ci alaxira dëgg-dëgg suuf moom taxul doomu aadama jóg kon ñun fi jaaruwaay bu gàtt la boo xam ne dañ koy war a yéwénal masalan bu doon dañuy dem ab dëkk fii ab pont la boo xam ne dañ ko war a jéggi ngir dem ca beneen dëkk kon fii ñun fii ay émigré lañ fi ñun ay émigré lañ ci kaw àdduna dañoo war a waajal dellu suñu réew suñu réew mooy fan mooy ajjana moom la ñuy ñaan ñëpp yàlla ñu ko yàlla defal léegi nag émigré bu nekk ci dëkku jàmbur di xalaat développement dëkk boobu yow da war a booy xalaat développement dëkk boobu fi mu waa fi ñu ko war a yamale mooy nan nga fi mën a nekkee nekkin woo xam ni di nga fi am titre de séjour mën fee am loo yónnee Western Union naa nga ma ki naa nga waaye yow nga fàtte sa dëkk di jéem a développé dëkku jàmbur kon ñun dafa mel loolu dañ cee war a teewlu ñun kon développement àdduna bi tubaab yi di wax ñun waruñu cee tënk waaye ñun développement alaxira la war a xalaat loolu xam naa lu bees lay doon développement alaxira xam naa ñuy développé suñu alaxira la ñu war a xalaat développé alaxira boobu lu tax nag ñu war ko waxtaanee ci kaw suuf ndax ci suuf ci suuf si dañ koy waajalee moom fee ma ku ko xas ba dem moom doo développé te dara moom waja doo maa xam ne loo xaajara rek fa am bu ko defee kon ñu war a seet islaam moom ni ma gisee développement kon ba mu leen ci kaw suuf ñu war fee nekk nekkin wu nekkin wu jaadu nekkin wu diiñ ngir mën a dellu ndax am na nuy doomu aadama bi nekk ci kaw suuf rek jaamu googu ko suñu borom sant day jafe ci moom kon faaw ñu nal suñu nekkin ci kaw suuf mooy am ay kër yu ñu mën a dëkk am ay ay yére ñu mën a sol am lu ñu mën a lekk ak ila axiri kon yooyu mun a ñàkk kon am googu ñu am loolu nag ñun jullit ñi mooy suñu développement bu dee ci wàllu àdduna dañ ci soxla mooy mooy la la tansa nasibaka mina dunya googu kon wabtaxi fii ma aatayka Allahu daar al-aaxira wala tansa nasibaka a dunya loolu sax tënk na ko kon li ñuy sax ku lépp ci kaw suuf ngir développement alaxira waaye développement àdduna développement àdduna bi du lenn lu ñu fi soxla akus ñëw ngir mën fay nekk nekk mu jaabu loolu rek la du lenn te mu mel ni boo demee ci sëñ Touba moom dafa mel ni tam bisim boobu la am dinaa ci ñëw ci kanam kon mel na kon gën naa leer wala boog man ni ma ko déggee xam naa bu ci amee ñenn ñu ko déggee nee ci laaj yi dina dina ci génn muy muridiya mooy islaam développement bu ñuy wax ñun développement bu ñuy wax mooy développement islam woote léegi li nekk foofu tam mooy dañoo seetlu ni baatu développement boobu bu ñu koy wax mu ci tubaab yi ak ñu ti doon développement bu ñu koy wax ci ay critères lañ koy waxee masalan ci ay mandarga lañ koy waxee maanaam dina am misaan dina am ay balance ñuy teg ngir mën na lii développé wala lii développé masalan ñun seetlu nañ ni am na ñetti fànn yoo xam ni daanaka bu ñuy wax développement muy tubaab it mu jullit ñi daanaka dañ ci dëppoo waaye ku nekk ñàkkul li ngay gën a jox solo mooy wuute critères yooyu mooy lan gis nañ ni jëm ca kanam nit nit mën na koo def wala réew mën na koo def ci wàllu xam-xam développement scientifique wala ci wàllu xalaat yi wàllu xam-xam kon développement ci wàllu xam dafa am kon du développement kese amaan na tam beneen xeetu développement boo xam ni ñàkkul ñun jullit ñi ñoo ko war a gën a fonk tubaab yi muy lan muy développement moral muy ñu nit ki di dundee ay jëfam ndax jëfam dëppoo naag li yàlla santaane wala yàlla ñu ngi daw li yàlla tere kon loolu mooy taxawaa kon développement noonu kon nit du développé rek réew développé ci économique rek ci ñu dafa war a développé ci wàllu jëfam ci wàllu dundiinam kon ñun jullit ñi bi ñuy wax dañu war a boole ñaari critères yooyu teg ci beneen bi nag muy développement économique bi nga xam ni moo ñuy may di ñu jàppandalal yaa xool xam-xam beeg jaamu yàlla bi wala rakal yàlla bi kon man gis naa ci ñetti fànn yooyu développement ci wàllu xam-xam développement ci wàllu doxal doxalin dundin ak développement ci wàllu condition de vie muy maanaam am ay kër ak ay taleeg ay demee noonu développement économique. kon ñetti fànn yooyu nag ñu gis ni bu dee li ma ko waxee woon sànq bu dee tubaab yi wala boog ñi nga xam ni diine ñoru leen ñoom développement économique rek lañuy ñuy la mel ni daal. bu naan fi ne nii da nga dégg ci débat yi Sénégal dafa war a développé dañ koy wax lu bari ci politique yeeg ci yu bare bari Sénégal développé mooy lan mooy Sénégal am ay bu ñoom ñëpp bu ñu ko waxee li ñu ciy dégg mooy Sénégal am ay ay yu bari am ay aéroport yu rafet am ay kër yu rafet nit ñi di di liggéey waaw bu fekkee Sénégal yooyu mel nañ mel noonu waaye nag li ñu amoon ci diine perte nañ ko nag ndax loolu développement la kon loolu ñu war a laaj la kon développement économique bu amee tamit bu dee lislaam moom moom loolu doyul ndax sax islam sax dafa mel ni dafa lëkkale ñett yooyu ma wax xam nga dama ko tudd ne xam-xam jëfin ak dundin waaye islam sax moom bàyyiwu leen noonu da leen a lëkkale masalan xam-xam bi dafa am doole ci jëfin wi ndax bu xam-xam bi matul développé wul jëfin wi mën naa bañ a développé kon développement scientifique bu amee wala xam-xam mën naa am jeexit ci développement doxalin bi kon dañoo am lu ñu seq te dafa mel ni sax sëñ Tuubaa moom bi muy woote développement ci wàllu xam-xam da koo lëkkaleek développement ci wàllu jëfin ndax daf ne boo amee xam-xam nga ko war a jëfe boo jëfit na nga ko teg ci xam-xam kon dafa mel ni ñaar yooyu dañu war a ànd kon sëñ Tuubaa moom bi muy wax développement moom foofu la ci islam bu ñaar yooyu ci la développement économique bi islam di soog am mel na ni ndax mel ne kon loolu loolu la ndax mu tax ndax bu fekkee xam nga li nga war a xam matal ko jëfee jëf jëfin wu dëppu xam-xam boobu muy ci ragal yàlla muy jëfin gëlam bàyyi tere boo ci saxee te teggee woo ci sa tànk dafa mel ni ci la la suñu borom di soqalee soqaliin bi tax ñuy wax mooy ci lay say kon développement économique bi islam di sax wuute na développement ndekete économique bi tubaab bi di wax ndax développement économique bi islam di wax mooy développement bi nga xam ne barkeel la mooy lu barkeel mooy da ngay sax ci li yàlla bëgg mooy li yàlla tere teg ko ci xam-xam mu soog laa defal barke kon développement bi dëgg-dëgg islam di wax te bi sëñ Tuubaa di woote mooy développement barke loolu nag xam naa indi na am naa borom xam-xam yi tàmbali leen cee gis yu bare bari suñu xaar ba tey xam naa ñàkkul am na yu bare bari yoo xam ni war na koo tijj ci ay bunt ndax waxtaan yu mel nii li ma war a jariñ du bu ma fi jógee dañoo war a ne lépp saafaraw na déedéet man damaa jàpp bu ma fi war a jógee dafa war a tijj ay bunt war a tàmbalee nag xalaat ci bunt yooyu incha allah